Senevision.com la crédibilité notre credo. Senevision.com wóor la tàggoo nag yéen. ci lancement bi nga xam ni président daf koo jël pour bëgg ñuy setal réew mi ñun yéene jiñ ci am mooy fas yéene lu président topp bi rek. ñu sol ko ñëwee ni kii nii nag mooy doo indi dañuy lancement fii tey suba ñu bàyyi dañoo fas yéene boole kook lu nga xam ne dañ koy boole ñu nekk ci garage bi ñu fas yéene li ñuy def toujours mu nekk am sewi loolu moom moo doo waral suñu tànk bi tey dëkk bi xam nga ku tàmbali tàmbalee ci garage danga bëgg boo ñëwee ci garage bi rek mu set booy dugg ci dëkk bi nga xemeem ko bu ñu tàmbalee fii dañoo fas yéene lépp set dëkk bi comme nii ma def rek. weex laa indi bëgg lépp mel noonu weex tàll rek. askan wii li ma leen di wax mooy ñu xool ci ci ci ci ci ñeneen ñi xam naa sax du tubaab yi mais nag ñu xool suñu siliwaas suñu suñu li nga xam ni noonu lañ bëgg di doxee ba suñ dëkk bi saa boo fi nee ci dem ci jumaa ji rek sa xel dem ci Médine kon loolu ñu am nag ñun ñoo war a faxe fas yéene góor góorlu fexe ba Touba toujours soo fi duggee sa xel dem ci bidin ndax boo demee ci jàkka ja loolu la sa xel di jox xel googu mu lay jox nag dañoo ñaan yàlla ñun ñu continuer ko ba boo duggatee ci dëkk bi rek ba ba ngay egg ca jumaa ja it sa sa xel midin rek la lay jox man loolu laay ñaan waa askan bi ñu xam ne ñoo war lu tax ñoom ñu setal ko loolu yaakaar naa bu ñu ko defee rek duñu am benn jafe-jafe tax tax. ñëwoon tey jii ci bis bi pour wuy si euh, ndigal li nga xamante ne bii son excellence monsieur le président de la république Macky Sall moom moo ko diglee ñu ñëw tey jii nag ànd ci ak suñu maire de la commune de Touba monsieur Abdou Lahad Ka ak euh, sous-préfet euh, action son juin di ziare bu baax aussi suñu kilifa gu baax gi nga xam moom moo fi ñëw di monsieur le ministre Cheikh Abdou Bali. vraiment lii nag di initiative bu baax boo xamante ne bii ñëpp dañu ko war a saluer mais rafetlu ko ba pare encourager ko bu baax jàpp ci ndax lii mbir la moo xamante ne bii kenn xamul lu tax président xalaat ko ba digle ko mais bu ko defu doon mën naa am mbalit mi nga xam tey jii génn nañ ko fii mouvement yi ak jeunes yi ak conseillers yi nga xam ñoom ñoo fi nekk ñëpp liggéey bu rëy bi ñu def fii tey bu nekku doon li président digle woon te préfet taxaw ci lii am wax dëgg la yàlla kon mënoon na doy waat trop ba tax na ñoo ngi soññ ñëpp dëkk bi yëpp dañoo war a génn ñëw jàpp ci liggéey bi mais aussi ñu fexe ba mu am suivi ndax it tey ñu liggéey liggéey bu toll nii bale gaaru ceer bi ak li ñu fi génn tey ji ci ay camion mbalit léegi suñu paree bàyyiwaat nit ñi ñu continuer di tuuraat mbalit mi loolu aussi baaxul je pense que war nañu mën a fexe aussi ba samp fi benn comité de suivi boo xamante ne bii mbalit mi biir gaaru ceer bi loolu nag maire dañu la koy euh, dañu la koy yóbbante nga jàppale ñu ci xëy na aussi ak président peut-être dinañ mën a fexe xool équipe boo xamante ne bii ndax it ku xool li fi gën mbalit ci biir gaaru ceer bii vraiment ku ne xam na ne loolu jaaduwul te it lu ci bari ñàkk euh, suivi rek moom moo ko waral loolu nag vraiment ak liggéey bu rëy bi nga xamante ne bii def nañu ko fi nañu fexe ba euh, mbalit mi moom ñu xool nan la ñu koy organiser mais ñu bañ fee nekkati di ko tuur fii